asalaamaaleykum mbokki internet yi seetaan Thiès 24 ñu amaat mbégte ñëwaat ak yéen ci suñu émission émission bi nag tey ñu am mbégte di dalal ku ñuy wax Ismaïla Sarr mu jiite kuréel goo xam ni ñu ngi koy duppee teewal koom-koom ci assemblée nationale kooku nag su ngeen déggee tur bi rek xam ni lu am solo la mais bala ñuy sore ci waxtaan wi ñu bàyyi Ismaïla mu présenté wu. tout d'abord dañuy nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, di nuyu internet yu Thiès 24 di nuyu également opérateur économique yu Sénégal yi euh, di leen dalal ak jàmm euh, di am yaakaar ni sunu waxtaan bi yàlla dinañ dimbali ba buñ ci jógee vraiment Sénégal yi xam li tax a jóg teewal koom-koom ci assemblée nationale. wax Ismaïla sama laaj bu njëkk teewal koom-koom ci assemblée lan moo wundu euh, euh, tur boobu. waa teewal koom-koom ci assemblée ay opérateur économique ñoo daje quelque waxtaan ko waxtaane ko ginnaaw bu ñu toogee xalaat xool environnement Sénégal gis ni assemblée nationale kat loi yu bari fa lañ koy tërale te yu ci bari vraiment euh, am na yu baax macha allah mais am na ci yoo xam te nag souvent day xaw a doy yu ci bari aussi dina jóg dal suñu kaw te souvent heure bi ñu koy réglé day fekk loi bi nekk na en vigueur ba pare kon day jafe pour problème yooyu réglé wu. Hmm. day mel daal bàyyi wuñ leen xel foofu daal. waaw bàyyi xel bi ñu war a bàyyi xel moom des na lu bari bari ndax amuñu ñu ñu fa teewal. Hmm. ndax xam mbiir bu fekkee dañ koy waxtaane te assemblée kenn koo xamante ni domaine boobu nekku fa mën a wax réalité bi nga da koy dund euh, ña fa nekk di wax rek parce que xëy na. Euh, théoriquement am na lu ñu ci xam mais théorie ak pratique dafa wuute. moo tax nag ñun ñu ni euh, dañoo bëgg les observateurs économiques euh, daje waxtaan wut ay député am day jóge ci ñoom pour dem assemblée pour défendre intérêt économique bi. baneen bi duñu yem ci loolu mais également dañuy défendre intérêt Sénégal yi parce que assemblée bi ni mu tëddoo gis nañ ni ñu ci bari dañuy ànd ak peut-être. gouvernement bi mu yóbbu leen fa ci mouvance présidentielle te ay vote systématique moo fa am mhm. maanaam lu ñooñu indi automatiquement dañ koy voté li ñuy wax majorité ak moo ngi noonu lu ñu indi dañ koy voté parce que ñooñu moo leen fa yóbbu opposition bi tamit souvent gis nañu du ñëpp nag mais très souvent lu ñee indi dañ koy contre parce que pour des position politiques mhm. alors ko assemblée warta demee noonu un député ginnaaw buñ ko faree jox ko lépp jël ko jox ko l' argent du contribuable jox ko oto jox ko carburant jox lépp lu muy def war na cee jiital intérêt population yi parce que moo tax ñu yóbbu ko fa donte am na foo bokk mais nag boo xasee ba toog foofu nag war ngaa mën a am liberté loi bi ñu la indil boo ko waree voté nga xool sa diggante ak sa borom xool intérêt bi nga xamante ni moom la ci sa population war a am moo tax ñun ñu ne dañuy jóg booloo waxtaan càmbar xool ay profil ay nit ñoo xamante ni bu leen fa yóbboo li nga xamante ni moom la ñu bëgg ci ñoom dañ ko dinañ ñu ko defal mooy représenter dignement le secteur informel et le secteur économique mais également défendre Sénégalais yi ci li nga xamante ne ay loi la yu war ñëw dal ci ñoom ba nga xamante ni dëkk bi dina am jàmm ndax gis nga sunu loi yi mm-hmm. ñàkk leer ak niñ koy voté xëy na des moo tax souvent benn loi ñëw mu bari interprétation te ñun ay liggéeykat lañu bu dëkk bi amee jàmm dañuy mën a liggéey mais bu dëkk bi amul jàmm duñu mën a liggéey vision boobu nag la am ba tax ñu ne nag désormais dañuy ñëw bokk ci langue politique gi xëy na ci ñun nag ku nekk am na kër gu mu bokk boo xamante ni ci statut dañ naan c'est apolitique moo tax bi ñuy taxawal voilà parce que yéen xam nañu leen ci ci politique bien que ku nekk ab sénégalais nga boo xam ne am na foo bokk mhm. moom eh, dañuy wax ni dañoo apolitique voilà jërëjëf parce que loolu tamit day jëral leeral kuréel yi dafa apolitique te ñu koy nangu euh, waaye nag balaa sax ñuy avancé nga bu nit bu ñu defee bu ñu defee benn charte ci benn kuréel war nañoo jàngat li tax charte boobu ñu taxawal ko man jàpp naa ni euh, moo apolitique lu tax ñu teg ko ci kuréel c'est très normal mooy tey xëy na man dama am fu may bokk politiquement keneen bokk faneen politiquement ñu bokk benn kuréel buñ jëlee kuréel gi rek jébbal ko benn Euh, formation politique day am ay frustration maintenant nag bu fekkee tey kuréel gi dans son ensemble moo soxla pour intérêt général est que dañuy toog rek ne duñu politique parce que nag politique tel que niñ ko waxee euh, lu baax la jaamu yàlla la maanaam mooy politique des valeurs politique boo xamante ni nit ñu diiñ ñoo koy def duñ ci sos duñ ci wax loo xamante ni waruñu ko wax duñ ci digee lu ñu mënul def naa ni loolu jaamu yàlla ci ay tuyaaba lañ ci am maintenant nag bu fekkee la politique politicienne bi ñu xam ñun xalaatuñoo def loolu mooy li fi nekk mooy ñëw dig nit ñi nax leen dem seen non non loolu moom non loolu xalaatuñ ko te jomb nañ loolu parce que it kuréel yooyu ñu bokk dafa am mag ñi luñ fi luñ fi ji euh, ñu ciy profité di leen gërëm bu baax a baax ci taxawaay bi ñu am ndax tey mbir mi su doon tool la euh, fekk nañ àll bu lëndëm ñu gor ko nettoyé ko labouré ko ba ñun tey buñ ñëwee mën a ñëw yor suñuy gopp bay waaye nag bu la mag ñi defalee loolu euh, verset bi mu taw nga continuer di labouré li la mag ñi defal xamoo ko mooy ñoom nettoyé nañu terrain ba mu set maintenant nag ñun dañoo war a ji parce que taw na pour ëllëg ñu góob bu fekkee ñëw góob génération future yi góob ci olof mooy mag ñi nettoyé nañu terrain ba mu set ñun nag bu ñëwee dañoo war a teg yeneen jalon mooy lii ñuy teg parce que mag ñi xëy na macha allah am nañu xalaat mais seen xalaat xëy na yëggagul woon foofu wala defaguñ ko moo tax nag ñun ñu ñëw nouvelle génération bi ñëw ni politique bi maintenant duñ ko bàyyeeg les politiciens parce que politique en fait du métier ku nekk da ngay am métier ba pare def ko. Ah, waaw loolu mooy danger bi nag boo ko defee métier euh, maanaam da nga ci yaakaar pour dund mais ñun yàlla dogal na ñu am métier ba pare que sunu wërsëg yaatu na que ñàkk yaatu alhamdulilah ñu ngi sant yàlla. bu ñu duggee ci euh, politique bi c' parce que dafa am loo xam dañ ko cee bëgg indi lu bees soulager sénégalais yi fexe ba sénégalais bu nekk lii muy recenté ci xolom à travers lii ñu créé ñu may ko ci opportunité mu mën ci exprimer wu. loolu moo tax ñu créer lii gëm ni sénégalais bu nekk bu comprendre li ñuy def wax dëgg yàlla dina daw wuy si ñu beneen bi opérateur économie yi ñu xam ni ñun ñëpp ku nekk formation ci à politique mais da daan dem politique. di sànni sa carte beneen politicien tey nag sa waa kër bu ñu ayee pour intérêt général war ngaa mën a nag ñëw ànd ak ñoom pour intérêt Sénégal mais également pour intérêt secteur économique euh, moo tax ñu ci profité di lancer un appel ak tous les acteurs économiques ci secteur yëpp ñu kenn euh, ndax Sénégal économiquement dafa am fu mu jëm dafa am fu mu jëm ndax ressources yi fi feeñ bari na bu ñu yeewul nag préparé ko doon benn say ànd ressources yooyu bu ñëwee ñeneen dinañ ñëw jël ko yóbbu ko defar ko indiwaat ko di ñu ko jaay ñu gën cee sonn donc moo tax jamono ñu toll jamono yeewu la suñu ay ressources ñu préparé ko waxtaane ko doon benn jiital inter général ba nga xamante ni yooyu bu ñëwee du doon malédiction mais bénédiction lay doon. coalition yi ñooy gën a dëgër est-ce na nekk dem ba xam nga fi ñu toll nii à l'heure actuellement bi ñuy def émission bi di waxtaan ak yow sunu li ñu gën a bëgg mooy dem ñun donc parce que xëy na ni ñuy waaw noo bëgg-bëgg xam nga di nga bëgg dara nag dem ba ci biir réalité bi di nga bëgg mën naa wuute mais sunu bëgg-bëgg mooy ñun ñoo ñu dem mais nag mën nañoo dem ba ci biir réalité dab ñu su boobaa on sera obligé ñu wut ñu ñu àndal mais li am solo ku ñu mën a àndal te boddiwuñu kenn ku ñu mën a àndal en tout cas nañu fexe ba suñu objectif nañ ko atteindre mooy am sunu ay député yu ñu teewal assemblée ñooñu nag ku ñu mën a àndal première condition mooy ñu suñu ay député seen liberté dañ koy am bokkuñu coalition boo xam te ne suñ demee lu coalition bi wax la ñuy wax non noo non nga xam te ne moom lañu ñu diggee suñu ay membre diggee ak askanu Sénégal loolu ku ñu mën a àndal bu ñu demee assemblée loolu la ñuy taxawee mooy taxaw pour intérêt général lu baax ñu appuyer lu doon safaan ñu xeex ko kon jërul kenn di ragal lii ndax ku nar jàmm rek foofa indi loo xam te ni day defar Sénégal defe naa ni boo déggee di nga ñëw war a taf sa bopp ndax lu baax ñu appuyer loo indi safaan la ñu contre ko wax dëgg yàlla ko bëgg lu baax nar lu baax boo ko déggee ànd ak ñun. effectivement effectivement ñoo ngi ci man démb tey pratiquement ci laa nekk ci di contacte di waxtaan am na nag système boo xam ne am nañ ko ñun parce que nag àdduna day dox te xel jaruñu lu am na suñu xalaat boo xam te ni tey man démb ba tey ci système boobu laa doon liggéeyee xëy na duñ ko wax fii keneen di ko plagier mais euh, ñoo ngi ciy liggéey te ñoo ngi ciy am ay résultats xëy na am na tuuti retard nag dañ koy reconnaître mooy sunu cérémonie de lancement samedi passé dañ ko def waaye nag ñoo ngi ko defee à Dakar samedi passé vraiment euh, ñu ci sant baax a baax ndax am nañ ci réussite liñ ci visé woon mooy Sénégal yi xam li ñu taxawal Sénégal yi xam nañ ko euh, wax dëgg yàlla te ñu ci bari euh, idée boobu nangu nañ ko ba démb ak tey vraiment li ñu am ci ñuy ñëw démb rek am na ay mouvement yu ñëw adhéré ci guddi am na ay personnalité yoo xam ne ay personnes yoo xam te ne ay personnes yoo xam te ni ko déggee ñoom ñoo sàkk ñëw bokk ci mbir mi kon pour vous dire que sénégalais xam na lu baax mais souvent da dul gis li nga xam te nekk na ci boppam te sénégalais bu nekk ci boppam bokkatu ci woon ay idées yu extraordinaire moo ngi ci mais souvent da dul am ay benn cadre boo xam te ne ko permettre rek mu li nekk ci boppam mu génne ko kon ñun nag cadre boobu la ñu may tey sénégalais yi pour lépp loo xam ni lu baax la nekk seen bopp yi ñu mën kaay ñëw ñu àndandoo ko liggéey ba am te ne ëllëgu Sénégal dina doon ëllëg boo xam ne suñu ay doom bu ñeen ñi nga xam ne suñu ay waajur jiwal nit ñi loo xam te ne vraiment lu la. yéen ngi ci assemblée ci contexte boo xam ne situation économique bu mm-hmm. euh, mm-hmm. mm-hmm. yaa ngi yéeg. yéeg ñi xam nga mooy man benn slogan bu may wax naan teew teewal koom-koom ci assemblée. vers une réelle indépendance économique du Sénégal. Parce que Sénégal, nag économiquement, on n'est pas du tout indépendant. te ce qui s'est passé en Russie, on a une indépendance. Gasoil bi yokk gaz bi manqué. Yoyu yep am na façon bu ci nit ñi communiquer. Waye nag bu la Yalla may may tuti xel di nga xamni li guerre ba ci Russie moko waral. Donc nag war nañ ci mëna jangat ba nga xamanteni Sénégal war nañu am indépendance économique. donte ci village planétaire lañ nekk ku ne day soxlaa sa morom waaye économiquement war nañoo bay war nañoo mën a def yeneen ba nga xam te ni yu mel nii su amee du ñu ñu dund te du ñu Sénégal on a tout di gën a jafe am nañu terre bu tàlli bu nangu am nañu ndox am na ñu ay jeunes yoo xam te ni mën nañoo liggéey maintenant nag ñi jiite nañu créer environnement wala fexe ba nga xam te am na ay conditions am ni jeunes yi nañu mën a liggéey. te jeune bi nga xamante ni day jël gaal di dem Espagne te xamul la mu fay fekk boo créer condition yu tax mu toog Sénégal liggéey day liggéey volonté politique dong la am na dëkk yu développé am na dëkk yoo xamante nii dañu am problème mu suuf dañuy lay toj xeer lay pour bay mais dëkk yooyu dañuy lay mais ñun amuñu problème boobu am nañ lépp volonté politique je pense te defe naa ne nag lii war nañ cee mën a jàngat ba buñ ci jógee vraiment Sénégal dem vers l' économique Euh, vraiment ba am te ni yii nii dinañ ko weesu ko wax dëgg yàlla. waaw li may tàggoo balaa may tàggu sax dinaa am tuuti benn pàcc rek bu may ñëw ginnaaw bu ñuy gërëmee sunu ay kilifa yi xam te ni ci organisation la ñu bokk xam ne day baax ñu tudd ko man personnellement du ma toog fent du ma ko tudd man inaa quoi jàppoo laa bokk te eh, ni ma koy waxee ci wàllu organisation falaay falaa nekk te falaay mas nekk di gërëm di nuyu suñu kilifa fa mu nekk dafa voyagé mu nga umra di ko ñaanal di sàkk ci moom ñaan di ko ñaanal mu ñëw ak jàmm euh, di wax rek di dalal xelam muy alaaji Idi Thiam voilà di dalal xelam di ko wax ne ñun njabootam lañu te lépp loo xam te ne day yàqal Unacois googu wala moom mu ko yàqal duñ ci dugg duñ ko def xëy na nag nit ñi mën nañoo interpréter wax wala indil la ko neneen loo xam ne comprendre ko d'ailleurs moo tax bi ñu taxawalee lii moom la ñu njëkk seeti ci ko bokk ci organisation en tant que sunu kilo parce que ñu bari ñu sos mbir mi am na ñeneen nag ci UNACOIS lañ bokk toog moom waxtaan ak moom mu ni ci principe bi wax dëgg yàlla rafetlu na ko waaye nag ci biir wax ji mu ni moom daa am lu ko tënk muy dafa am ñu mu jiite dafa am texte yi lu ko tere mu ko aaye dina ci waxtaan ñoom ci bureau exécutif ñu bàyyi ko may ko loolu mu waxtaan ceeg moom mais terewul ñu ne suñu liggéey waaye nag dina am nit ñoo xam ne buñ déggee mbir dinañ ko interpréter na neen kon foofu tamit nañ dalal xelam dalal ay membre UNACOIS xamal leen ni ñun UNACOIS dugaluñ ci politique moo tax ñu créé loolu. beneen bi ku mel ni Cheikh Cissé dem nañ fa mooy même soo lañ ko wax sama mboq yi am na ñoo nekk assise ñoom it gën nañ communiqué ci loolu parce que comme yàqkat yi dañoo bari rek souvent bu amee noonu la ñuy def. ñoom it ñu leen xam ne suñu ay frère lañu wax dëgg yàlla ñu baax lañu bañ fa demee dañ ñoo dalal dal bu am solo ndax kanam nit boo tooyee moom rek kanamam rek daa am lu mu lay wax président bi xaadim secrétaire général bi démb rek ñoo ngi jokkoo ndax bi mbir yi amee interprétation bari il a eu l'élégance de m'appeler pour laaj ma li xew moo ne ko naa la expliquer mais du ci yem man maa def déclaration dama lay jox vidéo bi nga déglu ko xam lañ ca wax parce que la ma ca wax mooy booba ñañ seeti laa doon cité cité leen ni leen waxtaan nañ ceeg ñoom ñu rafetlu ko mais nit ñi nag interprété ko na naneen ni ñoom dafa mel ni dañoo dugg ci politique moo tax démb ñoom ñu def communiqué ni ñoom politique uñu mais dalal seen xel leen wax ni mus ñoo wax ni ñoom dañuy politique dañoo wax ni idée bi rafetlu nañ ko mais ni ko président Idi Thiam defee noonu lañ ko defee mooy dañ ni ñoom it daamu leen tënk dañ ci waxtaan ak seen bureau exécutif loolu tamit ñu leen koy nangul kon ñu wan leen rek ñu ak ñoom benn lañu bu ñu kenn jaxase nga secteur économique bi dañoo war a mën a booloo am na nag ñoom xam te ne loolu arrangé wu leen dara ñëwee rek pour boole boole secteur économique bi dina am ñu ko yàq parce que ci yàq-yàq boobu ak ci wuute boobu ñoom ci yooyu la ñuy dund mais heureusement ba nouvelle génération bi am nañu vision am nañu gis-gis boo xam te ni xam nañ ne am na cadre bu ñu war a créer boo te ni ku nekk doonte fi nga nekk yaa ngi fa nekk war a en permanence war nañ faa mën a day di waxtaan kon c'est le lieu ñoom ma leen di remercier ci seen taxawaay di rafetlu seen taxawaay comme ni ma ko rafetloo ci président Idi Thiam mi ñu jiite ak képp koo am ne dafa jiite benn secteur boo xam dafa nekk ci côté économique. Euh, ñi fi nekk tamit ci moom ci ñoom bokk Thiès vraiment ay liggéeykat lañu ñu baax lañu wax naa ko bi ma jógee fii dem ci ñoom vraiment ñoom it suñu ay nit lañu kon ñoom it yàlla na yàlla taxaw di leen waxal ni ñun suñu diggante ñoom kenn mënu ko yàq lépp lu ñu jaaxal suñu diggante nañ leen woo euh, xëy na sax démb communiqué journaliste li mu ci wax xam naa ni ñoom waxuñu ko moo tax yooyu jàppuñu ko kon daal nañu dem la main dans la main mais nag fi may terminer mooy woote képp ko xam dafa nekk ci secteur informel nekk capitaine d'industrie ñoo ngi lay woo parce que yamuñu rek ci ñu nekk secteur informel tey am na ñoom te ni ñoo ngi ci secteur pêche secteur boobu tamit dafa am solo tey Sénégalais yi lekkatuñu jën bu mag man xaw ma kañ laa gëjee lekk 4 mètres ndax lan sunu jën yëpp bato yi dañ koy napp di ko yóbbu loolu nag ñoom ñu nekk secteur pêche boobu vraiment ñoom it nañ ñëw bokk ci combat bi xam ne li ñuy xeex bàyyi ñu benn secteur tey mënuñoo nangu secteur fi mu Sénégal li mu am ci ci ndox am ko ci ressource ci géej gi li ñuy napp lépp ñu koy yóbbu ci biti bàyyi Sénégal yi kon loolu tamit ñoom ñu nekk secteur boobu nañ ñëw rejoindre ñu ànd ak ñoom xeexal leen jàppale leen ba nga xamante ni li ñu war am nañ comme dëgg la ñee war nañoo mën a ñëw waaye nag accord de pêche yi dañ ko xoolaat te loolu bokk na ci nga xam bu ñu toogee dañ ko waxtaanee incha allah rabbi ñu ngi woowute képp comme dafa nekk secteur économique mu ñëw rejoindre cause bii xam ni cause bu noble la ginnaaw politiciens yi ñuy topp am na ci ñu baax parce que politique du am na ci ñu baax mais it bu fekkee da ngaa topp nit mu ne politique politicienne moo ci ëpp ñun ñu woote loo xam ci politique des valeurs la wax dëgg la war ngaa mën a ñëw ànd ci ba nga xamante ni Sénégal tey bu fekkee tey heure bii ñuy wax nii dafa nekk ci niveau dix fii ak deux ans cinq ans na nekk ci niveau cent ñu ngi lancé un appel solennel à tous les acteurs économiques di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni ñun bokkuñu ci ñi nga xamante ni dañuy xarab état état dañuy ànd ak moom ay partenaire la ku fi mën a toog di incarner état dañuy liggéey yow loolu tamit dafa jar a leeral. moo tax bi mbir mi amee coow lu bari mel ni dafa am ñoo xamante ni mbir mi leen yëngal man leen de quoi ont-ils peur ñun xarabuñu kenn état contre ñu ko on la là pour tout le monde te on sera là pour l'intérêt du Sénégal pour l'intérêt du secteur informel loolu daal ñuy tàggoo di gërëm ñëpp di sant ñëpp di tàllal ñëpp loxo di am yaakaar ni ñëpp ñoo xam te acteur économique nekk secteur informel dinañ ñëw jàpp ci komba bi def ko seen mbiru bopp salaamaaleykum wa rahmatullah